notification bi ngir ngay am suñu vidéo aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin alayhi salatu wa salaam mbokku Elvision TV ñoo ngi delluwaat ci sunu plateau ànd ceeg sunu soppe sunu xarit sunu rakk xaaj Mor Mbay di nekk kat tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ku miin xasida yi nekk it ku ñëw miinal sunu bopp ci tànt yi ah ñoo am mbégte am ferte am yaakaar ci moom ñu dalal ko fii nga xam ne mooy sunu télévision di télévision askan bi Hadj Mor ñu bàyyi la euh, askan bi nga nuyoog ñoom. ok salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, gannaaw bu ñu santee yàlla junni ci yonent bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa ñu ngi jël nuyoo beeg siyaara bi di ko jiital ci euh, xalifa général bi Serigne Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te amaand ak wér. du ñaanal mboolem xalifa généraux yi nekk ci këru diine yëpp ah, di nuyu di la nuyu bu baax Mouhamed te di la jox sa wàccuwaay tey nuyu mboolem koo xamante ne bi yaa ngi bàyyi xel émission bi ah, di leen jaaw jëfal bu baax a baax ah, Mouhamed nuyoo baa ngi noonu. waa xaaj Mor dañuy am kontaante bu baax a baax a baax ci dalal bi nga xam ne dalal nañ la ci kër Mm-hmm. ñu am ay kàddu yoo xam ne dañ ko war a saafante ak yow mm-hmm. mu am ay kàddu yoo xam ne tamit day jóge ci yow ñëw ci askan bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moor min nañ tànt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min mm-hmm. nañ tànt yi nga xam ne ci ngay toog di ci tagg yonent bi di ci tagg Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ah Mor mu bëgg rek nga nuyoog waa média bi ci benn bayit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ubbee ko jataay bi bismillahi rahmani rahimi wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى من سالني خير خديم المصطفى فإنني أقدمه بمصطفى أقدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من سنان ويكون أبدا يردي بلزيك خدمتي بدا فخر والدلال والإدلال ينخاد لي منهم بالخلال ma daatu wa xablu la daawa lii mbër wale ma daatu wa ma yomba ma huyo biya wa kafa zanba مددوا حين أناسي قلوا مرخا كفاني الهدى والبلوى مني إلي خدمة الخد لازمات روضته إلى الخيام عزمات xasida bi nga yëkkati waa sëñ Mor man air bi dafa may nduroog airu Ablaye Niang jàngkat mhm. man ma bëggoon xam ban yëg-yëg ngay am ci sooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ban yëg-yëg nga ci am ok Mohamed air bi ma yëkkati léegi mhm. ñoo ngi ko déggee ci Serigne Khadim Gueye nga xam ne bi ñuy tàmbalee am njàng eram lan la jang ba fi nu toll nii eram la jang ñu ko déggé won ci mom mu koy jang ñaag mi neex ñu lolu japp ñu nak mo tax ñu def ci euh ba nga xam ne min miinoonu erbi bi lool waral bi nga bi ngi waxé nu jang xassayit mo tax jang jàng bi bi ni am nak ci xasside yi euh, bu ni tag yonent bi mom euh, moom mënuñu ko wax kenn ndax euh, lolu sëriñ bi moko def yalla dogal nañu xassayit mom ñun mbolé won ko dara te té mom dong lan am lepp lu amit mom moñ ko moñ ko moñ ko defal waaw waaw gannaaw suñuy suñuy wajur suñu ñaani wajur dal loolu dal euh, xasaay di mo def loolu ci ñun bu ñu koy bu ñu koy tag dañ dañ ci am yeg yeg bu bo xam te ci mënuñ ko wax kenn waaw loolu nak xamna mbiru suñu borom la rek waaw xasaay di mi ngi non waaw waaw sëñ Mor euh jangal nga ñu léegi ben xasida nga ne ci euh sunu kilifa suñu wayjur ca xaadim géy nga déggee air boobu waaye sëñ moom dafa am benn xasida boo xam ne mi ngi ci raaya Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul moo ko bind mu ne falaa taqisu ibnu abdullahi bil fudala inna al kawakiba yuxfiha tilmaarum lil mustafa xayru xalqillahi manzilatan mu ne law wujihat nahwa al xaalu كل الوراء قارو واو من رام الوراء نيل فتن المسرعين له والفتن عند رسول الله قرار مي قصيده بوب دفا ام يك يك بو خامني man dama koy gis ci yenn jàngkat yi ñi ñi ñiy tagg yu rasulillahi parce que s Sëriñ Tuubaa moo wax ne mu ne fa laa taqisu ibnu abdullahi bu leen dëkkale kenn ak doomi abdullahi doomi abdullahi bàyyi Fatima ngir lan mu ne bil fadalaa i si ngëneel mu ne innal kawaakiba naka biddéew yi yux fiihaa dina ko nëbb asilmaanu jant bi mu ne li ko sëñ Tuubaa di di di misaale maanaam biddéew ak jant biddéew bu génnee jant génn jant bi day daal di muur biddéew yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la mel ci ci ci mbindeef yi waa léegi kon ñi nga xam ne dañuy dugg tànt mhm. di ci boole loo xam ne bokku ci maanaam di di di lamsalaat da ngay gis sax yenn takk tàggkatu yonent bi di dem di bokk ak ay musiciens plateau wala ñuy dem ci soirée musiciens yi mhm. di fa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te suñu wàññeekoo dem ci tànt yi di di di di bàkk turu yàlla mhm. di bàkk turu yonent bi di bàkk turu mag ñu baax ñi nga xam ne ah ñooñu liggéeyal nañ yàlla ba yàlla defal leen xegma defal leen tamit euh, ziyaara boo xam ne ñëppay ballee ci àdduna di leen sukkal di leen raamal mhm. ndax yow yëg-yëg boobu maanaam ci ñooñu def ban ban ban ban mettit la def ci yow waaw xam nga Mouhamed ñu ko nekk ak ak li muy def ak yéene yéene jim ci am ak yëg-yëg ñu koy defee ñun xasaayid yi suñuy mag lañu lañ lañ lañ fekk ñu def ku ci mutu bu mu tuddé sëñ Abdou Ndiaye khassayit ak sëriñ Fallilou sar ak sëñ Ibrahima mbay mi nga xamne mom lañu top ba doon jànkat tay ñoñu gisunu ñu ñuy doxé doxine wow te ñom ñoñu yar te te ki la yar euh, lu mu gat gàtt di nga jël ci mom ay jikko yo xam dina koy gis ci mom ñom nag gisunu ñuy jank xasaay diko dem diko def ci yenen milé budul fu sëriñ bi bëgg euh, lolu motax ñun tamit am xasaayit yi sëñ Tuubaa daa waxoon ne ndëndum buur la kenn du ko tëggal baadoo la man du ma jàng xasaayit foo xam te ni bii nii sëriñ bi sant ñu jàng ñu jàng ko fa waaw ñi koy def nag ñooñu xëy na ñoom seen xel moo toll foofu rek ak maanaa li nga xamante ni bii nii moom lañ ci am bu ñu jàngee ba muy muy muy xaalis bi te te te xaalis bi moo gën a ndaw ci li ci ci ci ci pay gi sëriñ bi di fay ci kuy jàng xasaayit waaw loolu nag ñi koy def xam naa ñoom damay ñaan seen suñ suñu borom jëlee leen ci lool rek Euh, ñu bàyyi ko ndax loolu gënul daal waaw ndax xasaay di suñ tubaab mi ngi ko tëggee ci alxuraan te lu alxuraan di bañ rek loolu xasaay di bañ kon waruñu ko def ci milieu boo xam te ni bii ne daanaka euh, barab barab la boo xam ne méngawul ak xasaay naan Masaalikul Jinaan. Mhm. non astafurlah Jazbul Xulub. Mhm. Euh, Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul mi ngi fay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kitaabu ko diini mhm. wa huwa xalili mhm. Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul nee ne téere bi di alquran mooy sama àndandoo te mhm. mooy sama soppe man awma lenn lu dul alquran te sëñ Tuubaa nee ne yónente bi mooy sëriñam mais kon bu demee ba yónente bi nga xam ne mooy sëriñu Cheikh baa Bamba Xaadimu Rasuul te ñu ne ñun yónente bi lañ gëm Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul lañ gëm moom lañ yaakaar kon yaakaar naa ne war nañ bàyyi xel ba bayit boobu mu waxoon ci jës bul xolum تعزمه بسنتي يقودنا للجنة تعزمه بسنتي يقودنا للجنة بالإذياد المنة للمغلس المعزم فمن يوازي مولدا نبيلا باب الهدى فلا يعصب ودا فاغتر من معزم نور نسيم الخديرا بيقصوا على قيصر من كان في أم الخرا مكة خير الخرمي waaw mu ne taazimuhu bi sunnati yaquduna lil janna mu ne sallam mam seydi haaji malik ne ala azimu laylal wiladati isbatan isa lam yakun nahwal xaraami udulin ba pare ñun ñu ne seyduna mouhammad lañ yaakaar seyduna mouhammad lañ bëgg mais am na melokaan boo xam ne ñun waruñu ko waruñu ko doxee bu demee ba mag ñi jël seen àdduna yëpp def ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bind ay xasida jagleel ko yonent bi yaakaar naa ne kon warul am na millions yoo xam ne waruñu fa dugg mhm. di fa tudd turu yonent bi mhm. wala di fa tudd turu mag ñu baax ñooñu moo tax mu ne képp koo xam ne yaa ngi tagg rasulillahi mhm. mu ne isdiyaadun dolleeku la est-ce que yaa ngi dégg mais naka ngay taggee yonent bi te amoo amoo dolleeku maanaam dolleeku ndax xaalis la Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw dolleeku gi mooy li ma la naa la tàggat yonent bi xaalis bi ñu koy jox moo gën a tuuti ci teraanga yi muy am. ndax koo xamante ni bii nii boo koy tagg dangay am am koom ba noppi am am àjjana. Ah, loolu nag nit mën na koo def. ba noppi yàqal boppam la mu war a am ëllëg mm-hmm. ni mu yàqalee boppam loolu nag mooy di dem ci barab comme barab yi nga wax sànq mm-hmm. di fa tudd yonent bi wala nga fay tudd mag ñu baax ñi mm-hmm. nga xam ne seen jubluwaay doon woon loolu ñoom ñoom drapeau lan lan doon yëkkati di yeesal sunnas Muhammad waaw koo xamante ni bi nag jubluwaay boobu nga am ah, ah, mag du mag du jël ay ay yëfam ah teg ko ko di ko ko di ko pasar pasaree waaw mooy mooy foofu laa bëgg waxee maanaam koo xamante ni bi daal yow yàlla dimbal na ngam tawfeex di tagg bëgg naa nga sellal ko te te di ko di ko defee fi nga ko war a defee waaw te te te toog na te xool sa bopp ba xam ne di nga am doo doolee ko waaw waaw waaw la waaw mhm. mhm. su ma tëddee tawat dee leen ma taggal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ndax tagg gi may taggal rasulillahi moom mooy nekk samay médicament moom mooy nekk sama piqûre mooy nekk samay garab xoolal dayo bi alaaji abdu tolloon bay wax loolu mais tey fi mu toll nii tey da gis jàngkat ne moom bëggul kenn ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaarul kenn ku dul Cheikh Ahmed Bamba yaakaarul kenn ku dul Seydi te boo ko gisee yéene ko sax lan maanaam genre yooyu lan moo koy indi lan mooy indi melokaanu jàngkat boobu ndax dangay dugg ci tànt di ko defee ci aal boo xam ne aalu ngistal la wala euh, aalu dóorukaay yi mhm. marto wala ban aal daal lay mel ci kooku waaw xam nga mooy li ma la wax léegi rek yow miin nga miin nga baas yi waaw mhm. ah, dañuy daje ci baas yi lu bari mhm. ah, mbir nag boo ci nekkee jarul yàkkamti tagg yonent bi dafa doon loo bi dafa xaw a yéex mm-hmm. boo ci nekkee faaw nga am patience te sellal mm-hmm. boo toogee xaar ko rek mm-hmm. lépp dana ñëw waaye sama kalaas bi danoo nekk ay jimm yoo xam ne bi danoo xaw a yàkkamti day nekk ci mbir di ci nab nabi nekk ci xasaay di ba yàgg ñu toog daal na li ñun kat war na mën a am lii war na mën a am lii bàyyi fa loola dem nekk ci leneen wala ñu jël ko diko bolé ak leneen lo xamanteni bi ni andut ak lolu mm-hmm. té tagg yonent bi dama la wax ne na mbuus mo xamanteni bi ni mm. bu xasse ba bënn mm-hmm. kenn mënatu ko té waaw dama ko xol ci seen i gi rek bi muy tàmbali jàng xasaayit mm-hmm. damay sétane ci YouTube bi di gis ay ay vidéo yo xamanteni bi ni boba man sax ko ëpp gis nga ko fim toll ni ni kenn upp ko ci teraanga ci jànkat kenn ko ci teraanga té lolu da ko xaar rek waaw bu ko fa xaaratoon du ñew waaw waaw kay waaw loolu laa bëgg wax waaw koo xamante ni bi daal mu mi mi ngi jàng de na xam ne lépp nga ci biir waaw euh, li koy li koy li koy leeral mooy confinement bi bi mu amee mat na 3 mois man génnuma jàngi fenn sama kër lay toog yor sama xasida di jàng waaye teraanga gu ne moom ma fa fekk te loolu xasaayid yi moo koy moo koy def waaw xasaayid yi moom boo ko boolewut ak dara rek moom moom moom moom moom dara dana la dana la teral ba nga xam ne yow li teraanga ji xasaay di moo la ko may waaw loolu laay digal ñoo ñi nga xam ne ni bii ñoom ñoo koy def nan toog rek te xaar te xam ne seen cër dina ñëw li nga wax ni dama la ci dolli euh, benn mhm. dal moo ma dal mhm. man sa trois maa ngi joxe sama kër di te yàlla indil na ma ci confirmation bi laa am ñaari ndaamaa ci confirmation bi laa xoolal loolu rek ñaari oto laa gaare sama buntu kër. ndeysaan. te ba may jàngale avant confinement bi aw ma ko woon. Mhm. waaye bi confinement bi amee ñu tëj ko. Mhm. jàngal ne dañuy tëj daara yi. Mhm. tëj jàkka yi ndax mbooloo ci la ma yàlla xéewalee loolu. dëgg la. kon lépp loo xaar rek. waaw. dana la fa fekk. waaye loo xaarul. du la fa fekk. may dégg ci ci ci sa baat. Mm-hmm. lu ëpp ci tànk yi. Mm-hmm. ngay ngay zikar. Mm-hmm. ci Cheikh Ibrahima Fall. Lamp Fall Babi Mouridine. lu ëpp da ngay da ngay boo xam ne wax dëgg yàlla. an euh, lay doon ci yow. ma bëgg nga jàkkaarloog euh, waa télévision bi ci xaal boobu rek. ci juróomi minute nga doole ñu ko baaxee baaxee ñu ko daal. la ilaha illallah la ilaha illallah jojo koddu faalin jaay Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah faal dabay maam Seynabu Njaay laa laa ilaaha illallaah faal maami Sëriñ Seex Jëmbu Faal laa ilaaha laa ilaaha illallaah Seex Ibra Faal njaga Cheikh Ibra laa ilaaha illallaah danu doon faal wut ku baax faal faal faal njaga yaaram faal ndeke booba yow laa isa jeeyo fatim penda lat suukaaɓe ngoone jeey damel damele damele damel de cefu njoogu dameel de calaw faal dameel ma samba yaaya faal moor kontaanate nañ bu baax baax a baax a baax a baax waa moor damay diggaat ci ci tànt yi mhm. ngay way benn benn xasida boo xam ne mhm. man bokk ci xasida boo xam ne daf may gën a yëngal mhm. ci xasida yi mooy xasida Cheikh Diop Mbaye moomu yaakaar naa ne ci moom laa ko dem déggee daal. Mhm. ku yor bakkan. waaw war nga ne jaajëf. Serigne Touba man xasida boobu. dafa am yëg-yëg ci man. li tax mu am yëg-yëg ci man mu wóor la ne ku tedd kooku maanaam dundam lépp. Mhm. da ko liggéeyaloon yàlla. Mhm. liggéeyul ko rasulullahi ba tax na. julli googu mu julli woon ci géej gi. muy sama maam muy sa maam muy maamu keneen kenn defu ko. kon loolu bokk na ci misaal nga xam ne yàlla nangul na ko ko mhm. ma bëggoon ci xasida boobu nga am tuuti euh, leeral bi boo ciy leeralal mhm. soo paree nga soog a yëkkati xasida boobu waaw moom maa ngi koy nuyu sax au passage Serigne Cheikh Diop Mbaye nekk nit ku yàlla baaxal bëgg Sëriñ Tuubaa loolu te yemale ko dara bëgg xasaayid yi conférence ndeysaan mu tudd sëñ Fallou rek mu yëkkati grand bu jasineer may ma ko mooy grand bu bu vert boobu mooy sol moom noonu la mel alaaji teg la mel xaritam ba la mel moom euh, day nit koo xamante ni bii nii dafa bëgg jeune xam nga ki mën na def te xale yi koy def sax du leen du leen encouragé du leen safoo waaye moom xale bu mu fekk ngay jàng xasida dana yëkkati addi ju bari jox la ba noppi safoo njàng mi bëgg ci lool ba noppi boo paree mu conseillé la daan njàng mi neex na loolu nag yàlla moo ko meloon noonu moom alaaji nekk nit ku baax kennal Sëñ Tuubaa euh, woy yi mu woy ni ko waxee rek loolu murit yëpp la dal loolu woy dégg di nga xam ne kii woy wi kennal Sëñ Tuubaa dong la si jublu wallaahi nekk nit baax koo xamante ni bii lii bu ma ko waxee am na jànkat yu ndaw yu bari yu mooy seetaan ñoom dinañ xam ne li ma wax ni dëgg la ndax alaaji jànkat yu jànkat yu ndaw yi dañuy toog ba yàgg sax dajaloo këram dem fa mu yëkkati ay yére dinu jox ak ak adde yi joo xamante ni bii nii mënoon na ko ci bañ a fekk ndax moom mooy suñu jëwrin ñun ñoo ko war a jox wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax ba Sëñ Tuubaa gën koo teral yokk yokk aw fanam te te wéral ko ci barke Sëñ Tuubaa ku yor bakkan na xam naa mënuñu ko waaye ñëw ñu barkeelu rek waaw ku yor war nga ni jaajëf borom Tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom borom Tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf sin bamba daa gore daa maandu bu ko neexoon kenn du yor satala kenn du kaalaw gore leen sant Serigne Touba ku yor bakkan war nga li jaajëf borom tuum yor bakkan war nga li jaajëf borom tuum Serigne Touba yi kenn ku ko kennal mu kennal la bëgg foo laamu daj fa la fa gën sant Serigne Touba ku yor bakkan war nga jaajëf borom tuum Serigne Saliou Mbacké sang bi yow sa ay gi ana sa pay Serigne Sall sang bi yow sa ay gi daane kon cant moo fi des gore leen sant Serigne Touba ku yor bakkan war li jaajëf borom Touba yàlla xam naa fi nga jógee moo la téye waaye teew lit yow yaa ngi koy def ci ci xaal yaa ngi koy defit ci ci yéene mhm. ndax ci suba ba tey da ngaa génnoon waaye euh, bëggeen ak cofeel mhm. li maam Seydi Hadji Malick ne وليس لعمل الالحاق يا عمل سوى المحبه والتعظيم والسلم بغي غيغا بغي النبي صلى الله عليه وسلم اك تيفر غيغا ام تي موم اك ياكار غيغا ام تي موم موتاخ با با با ايميشن بي نيميوكو وون بانا بانا تيوي موتاخ داما لاي نيانال يالا لي س سيرين واخ شيخ احمد بامبا خادم رسول ماي دانيل واي خزي رك وكانا خنا علينا نصر المؤمنين ني بري خامي نان مكو dama ko bëgg lool muy sama xasida nga xam ne du ma xëy te jànguma ko daanaa ko jàng bis bu nekk juróom-ñaari yoon xasida gi nag daa dem ba nekk ci man bu yàggul dara rek laa tënd la laa ko laa ko laa ko jàng tëdd génn Serigne Saliou fekk bis boobu dama xawoon a tawat ma génn Serigne Saliou mu yëkkati ndox def ci def ko ci kaas jox ma ko ma naan ko am na ñu bari ñu naan ci wax ci gént gi naan naan naan ko jugal dem hôpital mu ne leen bàyyi leen ko mu toog loolu loolu wakaanaa xan defal na ak maa xam nga ne wakkaana xaqan. Mhm. nekk na. Mhm. xaqan di luy dëgg al xaqu. Mhm. wala xaq. dëgg la dëgg dëgg. la kaana bu nekkee. xaqan. kon kaana day nekk xaqan nekk. kaana nekk na xaqan dëgg. kon xaqan kaana kaana xaqan. kon. zintu xasidati ti sukora. ولن تزل يا مالكي سكورا أكرمت لي كرام من ما سافل وكل ما أرلت من كنفال أتيت لي يا ربي من لدنك من لدنك يا ربي من لدنك zikran ki man faraditu an ka sëñ Bamba nee na baraktali ya rabbi fil xuroofi wa xayra wa jutta bil maarufi malaktani bi kawnikal karima ma xaadali tabsira wa takrima axtaytani man xalba ansa kulla man madamina durri ma awta sulaman kafa ani ما مالك وانا خد مالي زاخ كل من جاد اكرمني بخل ولا ولاد ربي ولم يكن لواك وانا خد نجل يلا مكرم سما تناجيا بي كفانيا كمد وجعل الأكرم أنفى الكرم ودرر بخير الدين سرم أسألوا كونتي الخسيدة خارعة لخادة المفيدة يا خيو يا خيوم سلم بسلام على الذي جاء بأحسن كلام الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من حلا حارسي الخروف مما يفوق سن من معروف لناسم الخروف خريد الربا يا من كفاه ذا الخرور والنباو ولي يا رغمان يا كريم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا نجاك عبدك الخديم زاو سلام مسلما على مزازي الخلا sëñ Mor sëñ Mor kontaan nañ kontaan nañ bu baax ah, Seydina Aline mi ngi wax naan temps bi xoj nañu waaye li des ci juróomi minutes yi mhm. ma am question yo xamne dama la ko ciy laaj. Mhm. wa señ Mor sunu yaay boy, ban qasida la gëna bëgg ci yow soo koy jàng muy muy kontaan. wa mom nak xasira yëpp ko neex. Mhm. ndax mom talibé bo xamanteni bi ni bëgg señ touba lol mhm. jang mu xasaayit gi sunu carrière zéna ci rôle bu mag nak bi ni gën nekk dana sunu baat dafa neexon yalla dimbal lu ñu dégg rek dañ koy dañ koy mëna mëna waxat kuni ku wax asan sunu nijaay bëggoon bëggoon noo jël pour yóbbu ñu si orchestre am waaye moom moo taxaw daan na kii jàngkatu la laa bëgg mu doon ko ak ah, kon moom ku bëgg xasaayit la ay sa min ni laa woon da jeewale nag saa yo mu ko dee jàng danaa gis mu am mbégte moo xam ne ak xasaayid gi moo ko waral. kon boobu dañ ko koy beral. waaw yaay jooju. nga yëkkati xasida boobu rek. nga boole xasida boobu rek. Mhm. ñaanal ko yàlla bëggal ko nag. Mhm. ngir jëm di Sëriñ Tuubaa Ah, waaw xasida gi na xanaa ñu barkeelu ci juróomi bayit rek ndax dafa xaw a dafa xaw a kii te waxtu wi mi hmm. mi ngi a mi ngi waaj a dab inna xibaadi laysa laka alayhim sultaanun ayasa minni laahu inda jeewali iblisa isna dayto biyaawali أيس من الله عند جوالي إبليس إسنا ديت بيابلي نفال خير الله خبل في النار بأهل بدر للصود كدري نفعل خير الله في النكار كل عزل لجر مكار هل من رحمن في سفينة بأنني خديم زل مدينة bara anillahu ladaa konaakiri min kulli jaali bililal manaakiri dëkk yooyu yëpp Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasuul wër na fa ba képp ku fa réeroon mu gind la teg la ci ihdina siraatal mustaqiim wallaay ndeysaan boobu mhm. Cheikh Ahmed Bamba mu ngi ci wax ay jaar-jaaram ci réew yooyu nga xam ne mhm. jaar na fa képp ku fa nekkoon ceddo mhm. képp ku fa nekkoon yahud yëpp mu jël la dugal la ci diina lislaam waaye sëñ Mor ñeme woo toog ci plateau bi euh, jàkkaarloog euh, télévision bi jàkkaarlook tamit euh, soppe yi ci internet bi mhm. te ñeme sant soxna si gërëm soxna si ah, ndax xam naa ne <laughs> ku la jàppale ci ci xasida yi la ku la jàppale la ndax bokk na li tax bokk na ci pour ma gaaw la mhm. ndax effort bu nekk def na ko man léegi su la bëggee jot ci moom lay jaaral <laughs> ndeysaan léegi ma bëgg eh, bayit yooyu yoo koy rek moom soxna si ak eh, tàggatoo bi ngay tàggatoo waa plateau bi ma delloo antenne bi mbokk ñu jàllat ci dafa air boo xam te ne dama koy faral di jàng mhm. maa ko mhm. nga ko ci ci média yu bari muy maam Seera Fall yaay boori bu maran maran way maam Seera Fall yaay boori jàll kenn nga ñun moome maam Seera Fall yaay boori jàll kenn nga ñun moome waajur la soppu dal di baax waajur weddi moom dootu baax maam Seera Fall yaay boori kenn nga ñun yaanu moome moom lool la bëgg ah, ñoo ngi koy nuyu bu baax au passage nga xam ne moom ñoo bokk lépp ah, tey jii sarax si ma yendu ndijaayam ba bokk way juróom ndey ak baay moo wàññeeku ah, ñu ngi koy jaale mbokk mbokk jullit yëpp amin te di ko ñaanal su borom xare ko àjjana te defal ko jàmm ju ju ju ànd ju ànd foofu mu nekk du nuyu bu baax na Nayal nga xam ne ñoo bokk ñoo bokk baay nga xam ne waajuram moo génn àddina kooku kooku moom ñu bari min nañ ko ah ñoo ngi nuy tamit suñu am di Moustapha kere nga xam ne sunu sëriñ la sunu xarit la sunu wëlëre la dinu jàppale ci saayir ak baatin di nuyu sunu kër ah, bu nu tuddee sama sama nijaay Ousseynou Fayare mi nga xam ne mooy kilifa ak njaboot gi dina yóbbaale sama nijaay yëpp ak sama sama yaay ak sama mag sama taaw yaay ah, ñu koy wax Alioune Nayal ah, ñoo koy nuyu baax moom it du nuyu waa Fass Mbao yëpp ak waa Samsam ak koo xamante ne bii nii yaa ngi béggee sëñ Mor Mbaye rek maa ngi lay fekk foofu di la jox sa loxo euh, di jox sa wàccuwaay di la nuyu tey jàmm am fi ci barke Serigne Touba jërëjëf Mouhamed. sëñ Mor nga nekk ku am mhm. euh, bi sallallahu alayhi wasallam wuy jur mayul doomam lu dul yar bu rafet. Mhm. te wax dëgg yàlla dëkk biñ dëkk yow jéppi wuñ la mhm. amul benn xar kanam boo xam ne gis nañ ko ci yow ci ñàkk euh, respect mm-hmm. ci ñàkk euh, orma mm-hmm. ah man de wax dëgg yàlla li ma mën a seede ci yow al alquran di wax ne wa ma shahidna illa bi ma alim na li ngay seede ci nit na xam mm-hmm. seen Mor man de xamewuma la leen lu dul xasida yi atelier ba jàkke ja man loolu rek laa la xamee bañ ne ko ba tànt yi dañ ciy fekkante te heure bu ma ñëwee sa kër dama lay fekk yaa ngi tiim xasida yi kon yaakaar naa ne loolu daa gis tey loolu ñeme naa ko seede mhm. ku dul man sax ñeme na seede loolu mhm. ah sëñ Mor may ziyaar soxna sa mhm. soxna Faatu Mbuub nekk yaayu xale yi nekk soxna Oustaz ah nekk yaayu daara ji di ko béggee bu baax di ko safoo bu baax di sama soxna di sama doomu bàjjan di sama xarit di sama lépp waaw di soxna soo xam ne soxna su mun ginaar la mhm. xam naa ne suñu Aliou moom saa yu may wax ginaaru soxna si rek moom day kontaan waaye xam naa dinaa mus a jël waa télé bi yëpp ah, yóbbu leen kër ga ah. ñu xam soxna Fatou li ma koy taggee ci ci télé bi ci ginaar nekk na ci moom mhm. kon dañuy ñaanal télévision bi yal na ko yàlla def télé bi gën a mag ci télé bi yàlla mun na ko yàlla ko suñu borom def looy looy looy ban baat ngay tàggatoo ak waa télévision bi waaw ni ma ko faral di waxee rek ñoo ngi nuyu sunu grand El Hadj Lo nga xam ne moom yàgg na noo xamante mu nekk nit ku baax ku yaatal koo xamante ni bii jafelul dara ah, bari na bagage yi nii eh, buñ ko soxlaa dañuy ñëw rek mu mu defal ñu ni ñu ko bëggee te dañu si teg benn sart moom nag dañ koy ñaanal suñu borom ubbi ko te te yokk teleem bi bu baax a baax mu nekk tele yi nga xamante ne bii nii moom lañuy ñuy bàyyi xel ci àdduna bi ah, tey ñaan suñu borom feebar bii nga xam ne mi ngi ci dëkk bi muy corona bi ñu ngi ñaan suñu borom Ah, dimbali ñu ci ah, ba ba ba ba dàqal ñu ko mu dem ah, ci ci te mu ànd ak jàmm te ànd ak xéewal noo ngi ñaan nag képp koo xamante ne bii nii yaa ngi ci ci ci télé bi di fi liggéey li nga fi bëgg yaa ko xam yàlla la ko yàlla defal ci barke Serigne Touba. barke démb nag sama sama wasi la Serigne Abdoulaye Diouf soxnaam dafa wàññeeku muy soxna Ndeye juuf ñoo ngi ko koy jaale bu baax a baax te te tey ñaan suñu borom moom sunu lépp la ndax nu nu mel rek moom moom moo ko moom moo ko waral. mok njabotam ku melni Serigne dam djouf borom bax ak ak domam yeb suma limé duma duma djum jum sa way dama dul matal wa ma ngi ñaan dal ci barke Serigne Touba di nuyu nak sama xarit bo xamne munu mënu ñak ba ñu nuyu muy Papa Guèye war nga ko xam doomu mère Amiloo koku limi def ci man sax mënu ma ko wax koku mënu ma toog si ba jog te duma ko duma ko sant gërem ko korité bi wessu ni dama tok ba euh mu nekk loo xam ne ni bii ñun génnuñu jànguñu jànguñu ñu fenn may xalaat naan man tey Korité bi nu ma koy nu ma koy lijjantee damaa toog ba yàgg rek mu dawal otoom fekk ma sunu bundu kër yëkkati mbuus moo xam ne ginaar yu bari la ci def ak la muy àndal jël adde ju bari boole ko ci daan na ma lii la ko jox adde Sëriñ Tuubaa kooku nag boo defalee loolu boo toogee ci ci ay ci média war nga ko man a sant gërëm ko maa ngi koy ñaanal ak Serigne Xaas Guèye sama sama doomi sama doomu nijaay maa ngi koy ñaanal moom it suñu borom guddal fanam ci barke Serigne Touba maa ngi ñaanal ñëpp képp kuy jàppale sëñ Mor Mbaye mi ngi la ñaanal ci barke Serigne Touba ah, jërë ngeen jëf. Ah, di ñaanal ah, Aliou mi nga xam ne moo yor télé bi. Mhm. di yor caméraman yi. Mhm. yor lamp yeeg yëpp dëppuñu ko. Mhm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal samiina waa liggéey bi muy def yàlla na ko ci suñu borom may ndam. mu nekk xale boo xam ne xale bu yaru la. moom Alioune saa yoo ñëw ci studio bi rek ndeysaan day yàkkamte jël caméra yi installé ko. pour lan. pour def ak yow émission. dama koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. waaye lépp lu mu bëggee it yàlla na ci wér topp. amiin yàlla na ci wér la topp. amiin fépp fu ñuy si fu muy dégg ay moroomam ak ay magam. yàlla nañ yàlla nañ ko dégg fu ko raw. muy xale bu baax di xale bu am yar di xale bu am teggin nekk ak sunu directeur sunu patron El mu nekk rakkam nekk doomu ndeyam nekk bras droit am tamit. dañ koy ñaanal liggéey bii mu sumb. yal na ko ci suñu borom may ndam mm, amiin ah di tàggatoo waa télé bi mm. di tàggatoo waa euh, ahlul bayti mm. rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp képp koo xam ne yaa ngi safoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ci këru diine yeeg yeneen kër yeeg yëpp euh, nañu bàyyi xel télévision média mm-hmm. xam ne télé la boo xam ne dara taxu ko jóg mm-hmm. askan bee ko tax a jóg mm-hmm. dara taxu ko jóg ëttu diine yi moo ko tax mm-hmm. koy ñaanal yàlla yàlla na ci sunu borom def njàppandal yàlla na ci sunu bul fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo